donc télé téléspectateur ñu ngi ci people mais ñu bàyyi Fatima mu nuyoo rek daal di tegtal actualité yi nga xamante ni moom la ñu àndil. xale bi xale bi. déggal lool loolu maa ngi lay nuyu sama waa ji. <laughs> Ah, nuyu coach. Mm-hmm. ñi dañ laa yeb de ndel pro max nga laal normal buum la yëngal. ah kon del pro del <laughs> pro max del la dañuy ah, dañuy pro max <laughs> oh, balaa ñu waa def niñ may def ah, bu ko defee ñu ñuy dooree actualité people yi gannaaw mën yoo téléspectateurs yi ah oh. Salma dañu koy dooree ak euh, wàllum euh, Miss World Sénégal 2021 ma mu ngi koy laajte ni euh, semaine bi ñu génn mm-hmm. mu mel ne leer na Penda Si moo ko gañe mi ngi toll si ñaar fukki at ak ñeent mm-hmm. dëgg ju sokkee ko fële ca Tambacounda moom Penda Si Milito moom moo ko mujj gagné mi ngi noonu xale baa ngi noonu. Mhm. waaw kay euh, doon ki nga xam ne moo fi toppandi moo jël euh, ci ki ko ci ki mu succédé en fait. Mhm. mooy euh, Alberta jaata moom ñu di ko félicité moom Penda si nga xam ne moo nekk actuel Miss World Sénégal. Mhm. Euh, te it ah, euh, remise euh, prix yeeg yu ni mel ci ak couleuru Sénégal yi nga xam ne moom la na rapporté ñu ngi ko amal ci mois de novembre bii nga xam ne moom la ñu jëm waaye it leneen ci wàllu miss bi Alioune Sow da ngay wax waxu sàcc ak mbuxum waaye mu mel ni yamu dong ci làngum politique beeg foo passeport yi am na ci wàllu miss beeg yu ni mel am na ci ay mbuxum ndax nee nañu benn waay bu nekk fële ca Belgique mhm. di wootu turu El Hadj dafa tëgg benn Miss concours ñi nga xam ne nag ñoo ko xamle mooy euh, waa Sénégal mm-hmm. gannaaw euh, Miss ECOWAS international bi nga xam ne day faral di am waa CEDEAO ñëpp doon ko ñoo koy bokk di ko organiser. Mm-hmm. daf ci am benn waaye bu ñuy buy wuyoo ci turu El Hadj nekk fële ca Belgique. Mm-hmm. moo waajal daal boppam ne fas na yéene def ab euh, concours ba commencé sax di ci. dajale ay ndaw yi nga xam ne doy na waar daal mën nañu wax loolu ñoom la ci commencé dajale t fas na leen boole nee nañ ci compétition bi waaye nag Euh, waa ñi nga xam ne ñoo yor gestion bu euh, ñi yor wàllu miss bi fii ci Afrique de l'Ouest mhm. xam leen génne nañu ab communiqué fësal boobule mbir ak ñaaw defi nee nañu di artu ñi nga xam ne ñooy euh, maanaam ñi nga xam ne ñooy nekk ci sponsor yeeg Sénégal ak international ak ñu ne mel ñooñu nga xam ne li wàllu miss ñor na leen mhm. ñu ngi leen xamal ni mbir mi wàllu foo usage de faux la mhm. mi ngi noonu doy na waar comme nag dañuy dem ba affaire u yooyu ñu ciy def ndax ñoom it. Mhm. nee nañu seen bos bu normal bi war a am mi ngi war a am fële ca Grand Théâtre incha allah. Mhm. ci mois de novembre waaye nag bu waaj a ñëwee moom nee na moom day mbis noonu. Mhm. dajale ay xalem di leen fale ci anam gu mu leen neexee ñoom. Euh, génne nañ seen communiqué xamal euh, ñi nga xam ne ñooy waa waa waa réew mi mi ngi noonu. ngi noonu. ñu wëy rek ak euh, mbiru Mamadou Sakho coach muy international sénégalais. gannaaw ab euh, moom soxnaam ndax gannaaw ba mu nekkee ci club londonien boobu euh, bi nekk fële ca euh, Crystal Palace moom Mamadou Sakho jabaram dafa fësal ab ko benn publication ci Instagram bu ñu sukkandikoo ci sans limite di xam ne ni doomam bu am toll ci juróom benn at dafa nekk victime ci wàllum racisme maanaam bu demee di jàngeek ay kàddu yoo xam ne yu ñaaw di ko teg ci deram mhm. gannaaw ak moom deram na mu mel ak ci ci ci ci mi ngi noonu daal ñu laay bég yu ni mel tax na ba ñoom seen waa classe yi di ko bedd di ko wax yenn yi nga xam ne daal doy na waar ba moom sax mu sàkku ci euh, kilifa yi nga xam ne ñoo yor wàllum école boobule mm-hmm. ñu yaraat seen doom ak parents yi nga xam ne ñoo fay indi seen doom mu ñu yaraat leen mm-hmm. te xool li nga xam ne moo war te yemale ay nit ndax gannaaw ba mu defee huit ans fële ci Angleterre mm-hmm. musul lu ni mel musu ko dal te nag moom soxna soxna si préciser na sax xam ne am na benn anniversaire bu fa mootu bu fa mësoon am Euh, invité wuñu kii di doomam mu doon lu doy loo xam ne ñaawlu na ko te it ñi nga xam ne internet yi bu ñu sukkandikoo ba tey ci sans limite jàppale nañ ko ci kaas yeeg yu ni mel te di sàkku daal moom soxna sa Mamadou ñu euh, jàppale ko rek ci ci ci mbir mi ndax doonu loo xam ne lu lu lu lu lu rafet la. Mm-hmm. yàlla nit moom la match bi contre kii rek dañ ko doon euh, maanaam di koy. Mhm. xam nga di wax ay banaana voilà ba banaana. Mhm. di ko naan golo xam nga yooyu mu ngi commencé mu ngi jugaat. Mhm. mais man je pense que aujourd'hui Euh, FIFA wax na gën a góorgóorlu mu ngi mu ngi jéem nag waaye wax na gën a góorgóorlu mais surtout dëkk fi mu gënee amee. il faut que ñu wax ak waa UEFA. waa UEFA. ñoom la ñuy wax parce que ñoom ñoom nag ñoom laa déggul ñoom ñoo jëlul maanaam matuwaay yu war yoo xam ne pour xeex. li nga xam ne mooy racisme bi. Euh, euh, ci championnat européen yi. Mhm. dafa bare en Europe dégg nga vraiment dafa ñaaw. c'est mm. mi ngi noonu ñu ñu woy rek Salma mu doon loo xam ne euh, ñu ngi koy ñaawlu bu baax waaye dañu koy doore dañuy wéyalee mbir mi rek ak la fi xewoon démb sax am na xët yu njëkk yu yéene kaay yi génne woon. Euh, def ko seen euh, ab euh, xët wu njëkk muy mm-hmm. wàllum couple Salé bi nga xam ne dañu yoroon amoon moom Karina Yasmine Salé doon accouché fële sa clinique des Madeleines mm-hmm. gone gi ñu jëloon ko yóbbu ko ci rayon UV pour mm-hmm. gën a mën a xool daal ndax dafa judduwaale yenn mbir ñu demoon doon ko xool waaye nag dafa mel ni ab négligence moo fa am ndax gone gi dafa mujj lakk ba xëm mu dee ci anam goo xam ne anam gu doy waar la boobu la mbir sax tax na moom bi jëye mu gone gi lee ay wajuram jàpp ko jagat jage jagat jagadee ko yóbbu ko fële ca hôpital Dantec pour def ab autopsie waaye nag la feeñal mbir mi li autopsie bi génnee mooy wàllum lakk-lakk ak mhm. càgganteeg yu ni mel moo tax sax gone googu xaw a euh, ñàkk bakkanam loolu le tax nag ñoom ñu leen féetee ca hôpital boobu ñu teg ci loxo ñeent ñi nga xam ne ñoo fa nekk di liggéeyee ak euh, kile di directeur bi ni niki démb euh, barki démb plutôt jàpp nañ ko yóbbu ko teg placé ko en garde à vue juge bu huitième cabinet moo def lu nu mel. Mm-hmm. waaye du moom dong ndax infirmière beeg nurse beek ñoom ñëpp pédiatrice pédiatre bi aussi ñoom ñëpp gàddu nañ leen teg leen ci loxo yoon ndax nee nañu loolu ñu ngi leen di toppee sax jamono ji homicide involontaire mu doon lu doy gën a bàyyi xel ndax jamono ji ñu génn am na kenn koo xam ne mu ngi woon ci euh, milieu euh, presse bi génnoon na gannaaw ba mu accouché ba pare xam ne ni bu xelam daloon ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, hôpitaux Sénégal yi du dem fële ca États-Unis wala feneen ak feneen mu di fa mm. am yi doom mu doy na waax loolu nekk na cas bu sensible Fatima parce que la petite elle est née prématurée mhm. ñu waroon euh, koo toppatoo mhm. ay waajuram amoon xel bu dal amaana ci clinique boobu moo tax mhm. ñu demoon foofu mais elle est morte calcinée ci anam yu nga xamante ni dafa métti loolu parce que dañ dañ ko yóbbu ci couveuse ba pare ba fàtte ko fa donc rayon UV yi euh, moo ko def loolu et euh, vu que justice aussi amal na ci ay jéego rek mu nekk lu am solo mi ngi noonu masawu ay waajuram parce que mel nekk na lu noonu bu ñu koy faral di defee nii rek gëm naa ni situation dina changé dañu koy terminer rek Salma comme waxtu bi dañoo xooj mm-hmm. ñu terminer ko ak euh, mbirum euh, avortement médicalisé yi mu mel ne lu yëngal réew mi la jamono ci ndax gannaaw ba ñenn ñi di xeex euh, wàllum avortement médicalisé ñenn ci ñi nga xam ne bay teg protocole Maputo mu mel ne ñoom protocole Maputo bi li ñuy li ñuy xeex bokkut ak dara ak li euh, code pénal Sénégal wax ndax gannaaw ba ñu defee ay euh, recensé yenn ci hôpitaux sénégalais yi xool yi nga xam ne mooy wàllum avortement yi yu ni mel mm. doon na loo xam ne euh, lu doy waar la ndax mën nañu ni mel nañu ni ndakaaru moom moo jël pee Thiès topp ci jurbel mm. doon moo ci topp ak Kaolack yu ñu mel ndax avort ci avortement yi ndax plus de cinquante et un mille avortement dafay am ci réew mi mu ngi noonu cinquante et un avortement mhm. ki ko xamle mooy Aminata Libin Meng moom nekk euh, euh, euh, psychologue clinicienne moom Aminata Libin Meng moo xam ne lu ni mel te it sax mu doon lu doy waar ndax Les ko fësal na ko démb. Mhm. gannaaw li ñuy wax ci avortement médicalisé que ñu nangu ko que ñu bañ ko nangu ndax ñenn ci kilifa yi nee nañu. Mhm. yoonu Sénégal ak diine nanguwu ko hmm. waaye mu mel ni bu ko diine nangoog bu ko nanguwul it mbir maa ngi jolli ndax pour arrêter koy du doon lu lu lu lu lu yomb hmm. téeméeri avortement ak fanweer ak juróom ci réew mi moom la ñu nemmeeku. en tout cas protocole de Maputo boobu ñu ngi koy invoqué bu baax a baax. Mm-hmm. waaye it imaam yi aussi ñu ngi génn à mm-hmm. pour wax li nga xamante ne moom la diine l'islam andi nañu xool nu mu gën a rafetee te euh, ànd ak ñun suñu culture suñu valeur ak suñu l'islam ñu doxalee ko noonu je pense. Ndakaaru moo jël raw gàddu gi mille 6948 avortement mu doon lu doy waar. yàlla baax na Fatima damay tàggoo uh-huh. rek ah comme tey nii la demee. information yi amoon na solo amoon na solo waaye nag damay jaaree toonu tàggu sénégalais nuyoo ma leen woon sax waaye teyit it euh, laataa may tëj. Mhm. dañuy euh, jaale ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum aar bi. Mhm. muy euh, benn ndaw su ndaw si nga xam ne moo nekkoon ci mbirum théâtre ak yu ni mel. Mhm. di Myriam Ndior moo wàññeeku ni gi démb. ñu gën kon Myriam Ndior mi ngi noonu moo wàññeeku démb falaa waroon dooree sax waaye nag ni mbir mi demee ñu koy ñaanal suuf oyof ci kawam lépp loo xam ne rek yàlla. Euh, malaaka yërmande rek euh, wallu si ko hmm? incha allah di jaale hmm. bu ñu ràññaale bu ñu ràññee ba pare euh, femme bu correcte dame bu hmm. ah, bu mën li muy def aussi Euh, bu photo bi ñëwaat ñëw na léegi mën na mën euh, euh, maa ko oh, day dëkk xaar xaar mais je pense ñoo ko ñoo ko njëkk a mm, feeñal ah? temps yi mi ngi woon Marodi ah, kay di def liggéey bu am solo ku yiw mm-hmm. ci yenn ci ay kii sax mi ngi noonu coach soxna si la eh, eh, mais beaucoup waaw moom la. Mm. beaucoup donné des conseils. des voilà mi ngi noonu. waaw mais problème def sa anneau elle eh, n'hésitez pas. ngeen aussi nee nañu woon dafa social. Oh. yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla yërëm mi ngi noonu jërëjëf Salma nañu tàggoo tàggoo bu dul tàggatoo rek gërëm téléspectateur leeru jamono yi. Mhm. nga souhaiter ma joyeux anniversaire rek ak madame Simaga. jabaru bàmbara bi ku baax la. ayca ñu ngi lay bëggee madame Simaga jabaru bambara bi. jabaru bambara bi <laughs> am la jox